saar lixlaas muy xul huwallahu ahad li muy gàtt gàtt dafa tolloog ñetteelu alquran boo defoon alquran ñetti xaaj xul huwallahu kese dana tolloog benn xaaj ba xam ne saa yoo jàngee ñetti xul huwa rek mu mel ne ku wàcce ab kaamil xul huwallahu ahad boo saxoo bis bu ne nga jàng ko ñaari téeméeri yoon yalla faral la Bakari yi juróom fukki at ba tax na am na ci ñu baax ñoo xam ko defoon wird di ko saxal bis bu ne ñu jàng ko moom qul huwallahu ñaari téeméeri yoon waaye nag ku ko def bañ lay faral say bàkkaar itam duñ ca boole bor yoo amee loon keneen bor moom dañ ko wax ne ku deexoon ci jihaat sax xamni aljana ay kërëm du té bala dem aljana rek fay doriya tuhu wallahu ahad sa yo ko jangé rek mo xam booba da ngay julli mo xam julli ak waxtu ma di doon rek yalla bindal la mucc ci sawara faawu faawu kon nak del bari la jang qul huwallahu ahad batay tey bo na boo jullee suba ba qul huwallahu ahad fukki yoon ak yar day mel ne wàcc nga alquran yeenti yoon tey bis boobee ku defut la nga def mbaa mu def lu ëpp la nga def yaa ko gën nee nañu sëriñ bu mag bi santaane woon na ku sëlmal jullit farata rek mu jàng xul wallaahu ahad fukki yoon ak yaar xam ne ndigal la moom tëkku ko ci gannaaw suba dong gannaaw julli farata yépp loo taxul nag mu wax luy njariñ la ak lu tax mu digle ko mbaa dara